Et eh, vous savez bien que quand le roi euh, fait appel, on se doit d'être ici. Et comme nous euh, avons son excellence Yusundur euh, euh, institution là. Et je crois qu'il l'a démontré encore une fois de plus. Malgré aujourd'hui l'âge, mais quand tu entends sa voix, tu te dis que il est, c'est un gamin qui chante, c'est un, c'est un jeune qui chante. Et je crois que Youssou sera le Youssou Nour du Sénégal comme nous mu dit, euh, Sénégal vert jaune rouge l'étoile étoile bi de nit ñi étoile bi et je crois qu'aujourd'hui, Sénégal pour moi, indépendance c'est l'un des plus dignes fils du Sénégal et pour wootee tey jii jaral na nit ñi ñu ubbi sax autoroute bi bàyyi nit nous dox ñëw sargal ka parce que il a toujours été l'ambassadeur du Sénégal. vous savez xam ngeen euh, Sénégal dafa am discussion yu nga a euh, des faux débats xam nga yus ku ñëw ku ñëw feesal dem feesal feneen ak feneen dëgg na fu nekk ba nga mel ne tey jii rek nga ne El Hadj buy football ci koñ est-ce que dina am pression El Hadj buy football ci koñ du am pression parce que joué naa Égypte quatre-vingt-dix mille spectateurs joué naa tey coupe du monde premier match coupe du monde elle est plus regardée que partout dans le monde kon tey jii aw ma lu ma mën jox pression suma àdduna c'est pareil pour le roi et son excellence Youssou Ndour aujourd'hui bu waxoon day dëgg tey jii Balakos yëpp wala Pikine wala Guédiawaye li féppay fees de toute façon il yàlla ak et il y a des faux débats Vous dee wax dina café sale, dina café sale, noonu wax ñeneen mais Youssou restera toujours le meilleur. pour nouvel an message bi Monde Sénégal d'abord il y fi jàmm yàgg euh, mbas mi jóge et le plus important que Sénégal dem gagner Coupe d'Afrique au Cameroun Indique que Youssou ñëwaat nous oublions ubbi arena bi def plein air feesal que fete at gaynde